jullit yi yi. jullit yi mbokki taalibe yi. mbokk yëpp. mbokk yëpp. ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare. ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare. di leen seereel suñu cant. di leen seereel suñu cant. ndax gannaaw bisu bisub cant la. boroom dafa waxoon ne dafa bëgg ku ko ko santale. kon nag. day cant yu bari. day cant yu bari. day daje ci moom. ay cant yu bari day daje ci moom. bala nu koo santale. bala nu koo santale. dañ koy sant moom ba noppi. santal ko diggante ak sant ko diggante ak yonent bi. sant ko diggante ak yonent sant ko diggante boppam. sant ko diggante ak boppam. sant ko sunu diggante ak moom. doora nag. jublu ci ndigal li. nag jublu ci ndigal li. muy santale ko muy santale ko. santale ko borom. kon nag alhamdulilah niñ ko daan defee rek. kenn ku ne la nga mën lu baax. kenn ku ne la nga mën ci lu baax. nga am ci Pastef. jëf jëf jëfandikoo ko. jëfandikoo ko. ngir santale ko. ngir santale ko. loolu rek mooy li ci am solo. daa jiital alxuraan ji. naa jiital alxuraan ji. niñ ko daan niñ daan jiitalee alxuraan ji. kenn ku kenn ku ne na am posté bu bu ko mënee jàng ñetti kaamil. bu ko mënut te it. te man benn it. ba tey baax na. bu ko mënut te man koo jàngalu it. ba tey baax na. la lépp nag. la ca des na ma ko waxee woon rek. am lu mën ci kenn ku ne lu mu mën ci lu baax. lu mu xam ci lu baax. na ko def ngir santale ko boromam. loolu rek mooy li ci am solo. te nag gën a góorgóorlu nag bu baax nag. ndax sëriñ sëñ bi moom du du ku ñuy roy ndax mu ne su koo roy waaye nag mën nañoo def suñu kem kàttan boolewul sëñ bi boolewul dara ak boromam. loolu yonent bi mënu ko joxoñ. mi ko joxoñ moom mi mu ko joxoñ yonent bi mu ko joxoñ. dox doxinam wépp. doxinam wépp. dara lépp jëm ci borom. doxinam lépp rek jëm ci borom. jëm ci yonent bi. kon loolu du kuñ mën a roy. kenn du ko jëm sax. waaye nag nañ def suñu kem kattan. nekkal ko ci ni mu ko bëggee woon rek. fexe mel niñ bëggoon mu mel ni mel ni. lu nu mën suñu kem kattan. bu nu mënee suñu kem kattan. lu nu mën suñu lu nu men suñu kem kattan. gën koo jublu. nu gën koo jublu. gën a jublu suñu borom gën a jublu lu nu mën suñu kem kattan. lu nu mën suñu kem kattan. nu gën a dummóoyu adduna. gën a dummóoyu adduna. ndax noonu la ko bëggee. ndax noonu la ko bëggee. ba leen koo sant. nekk nekkal ci lim koy nekkal ci lim bëgg. lim bëgg nag. bëgg nag. mooy jublu yàlla mooy jublu yàlla rek. dumo yi it àdduna bu ko defee nag. bu diggante bi diggante bi. lu nu man sunu kem kattan. ci def ndiggal li. bàyyi tere yi. nu di ko def sunu kem kattan. kon loolu. mooy doxin wi nan ci góorgóorlu bu baax loolu kon bay ba mu jox señ Bas kàddu gi ndax ndax buñ duggee foofu <laughs> duñu xamati fu ñuy yemi kon waaye mën li ci des mën nañ koo jox sëriñ bas rek mu eggale ko. kon sëriñ Bass eggaleel kàddu yi. ni ko daan waxee ak niñ ko daan defee rek. bismillahi